alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu bi Kossy TV cosaanu bi mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg kóllëre geeg i rajo dellusiwaat nañu ak yéen ci jotaayu mag ñi ci suñu ñaareelu pàcc bi eh, ni nga xamante ni nii noonu lañ leen ko waxee woon ci tàmbali gi tey nag ñu ngi war a waxtaanee Cheikh al Islam Al Hadj Ibrahim Niass invité bi nga xamante ni it moom la ñu doon xaar di abu Aboubacar Ba at Tidiane yegg si na ci studio bi eh, ci ñaareelu pàcc bi. kon bu ko defé rek ngir gagner temps ndax it nak xamna ne li dess ci waxtu yu bari wul Cheikh abou bakr Ba dañu lay nuyu dalal la jàmm suñu lajit bu ñëk ñu tofalalé ko ci nuyo bi moy nak kan moy Cheikh al Islam al hadji Ibrahim nias radiyallahu anhu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam Cheikh Ibrahim maa ngi lay nuyu. seen di nuyu sa naataango. Cheikh Tahir Cheikh Tahir Fall. di nuyu mbooleem auditeurs yi nga xam ne ñu ngi déglu rajo bi di i rajo. may am kontaan lool ci wuy si leen ci jotaay bu tedd boo xam ne dañ koo jagleel ëtti mag ñi tey ngeen jagleel ko cheikhul islaam Mawlana Alhaji Ibrahim Niass radiyallahu taala anhu laaj bi nga ma laaj neexul a tontu mais it yomb naa tontu kan mooy cheikhul islaam maulana alxaaji ibrahim ñas radiallahu anhu neexul a tontu ci jëmm ju wax ne xamaltu sirra xaatimil wilaaya jamaatu bayna zawqi wa diraaya xam nga kooku neexul a tontu moom mooy kan comme wax na ne moom moo yenu mbootum xaatimul wilaayati di sayyidina Sheikh Ahmad Tijani radhiyallahu ta'ala anhu waxaat ne wama qata'u fi sharqi wal gharbi fatfadan ila makkata illa li shammi shada'i wax ne góor yalla yi nga xamne dañuy dag ay ndandi foy foy jogi fi dem ba makka mu ne sama xet rek mom mo len xegn ñu bëgg xam xet gogu xegn ci jën jëm la nek ñi wër sama jëm ñi dajé nañu ak man dajé wuñu ak man kon xam nga koku wax ne moy kan yombul waaye nag euh, buñ jël siwaatee pour yombal ko dëgg-dëgg baat biñ ko tuddee rek muy cheikhul islaam alxaaji ibrahim ibnu alxaaji abdullahi alkawlaxi tijaani doy na pour ñu wax ne moom la muy ne boo tudd turam da ko tuddee cheikh ne sëriñ bi waaye boo nee sëriñ bi euh, comme na ko Seydi Ali Cissé sëñ Ousmane Ndiaye leerale woon al cheikhu bi jamii maratibihi mbooleem martaba yi nga xam ne martabay sëriñ la dafa daje ci moom maanaam moom euh, juróomi xeeti sëriñ yi nga xam ne moom moo am ci tasawuf lépp yàlla def na ko ko mu nekk cheikhu taalim sëriñ la boo xam ne day jàngale ay téere amul benn téere boo koy jox mu delloo ko boo ko jox rek mu jàngal la ko ba mu leer cheikhu talqiin mooy sëriñ la boo xam ne dina la sa wirdu ndax am na ndigal ci tariqa tijaan loolu dina ci yegsi ci kanam waaye cheikhu tarbiyati la boo xam ne maanaa xeetu tarbiya yii góor yàlla yi daan tarbiya yépp moom yàlla may na ko xeeti tarbiya yooyu mu daje ci jëmmam hmm. dana tarbiya bi zikri دانا تربيه بالهمه دانا تربيه بالحال دانا تربيه باللقمه دانا تربيه صاح بالنظره دانا قول نيت ريك مو ييغ سي يالا دانا واخ نيت كي ليكال ريك مو ليك ييغ سي يالا كون شيخ المربي لا مي غينا بيم نيك شيخ المربي مو نيك شيخ المرقي مو شيخ الترقيه nga xamne bo ñewé ba egg ci hadra yalla bi tabaaraku wa ta'ala nga wara bu boobaa it dana la mën di yéege di la orienté ba cheytaane du la yàqal nga teg sa tànk ci sunna ak siraatal mustaqim hmm. waaye itam moom cheikhul islaam alxaaj ibrahim Niass cheikhu taqdim la mooy sëriñ boo xam ne mën naa sampaat nit mu nekk ab sëriñ loolu itam yàlla jox na ko ko nga xam ne samp na ay muqaddam samp na ay xalifa yoo xam ne ci àdduna bi tey ay sëriñ la yu ñëpp xam hmm. kon bu ñu nee cheikh baatu cheikh bi nga xam ne tey jii bëri na lool ba am na sax ñu naan ñoom dañoo bëgg a gedd turu cheikh <laughs> ndax euh, bëri gi bëri lu ko waral oustaz li ko waral mooy maanaa dafa am ñoo xam ne dañ <laughs> nga ko kéemaan la dañ cee chargé waaw ndab la lu dañoo def ci ndab li lu ci bokkul melokaanoo beneen melokaan boo xam ne daanaka sax yow dootoo bëgg sax ñu ooye la cheikh ngir ñoom waaye ñi ko doon dëgg waaye nag du yàq maanaam du yàq maanaam déedéet déedéet in yaati muntasibun yan mi ilayhi bi maa yuxaalifu sharaa àqal waalidal waladu waaw mbir ku ci bokkul itam bu ci bu ci bu ci kiwul itam du teelam doon doon na ko valeur ba mu am mu ngi ko am wa ala kullin cheikh la boo xam ne samp na ay muqaddam samp na ay xulafa kon moom cheikh ibrahim Niass شيخ بجميع مراتبه الشيخ بوبو تي مبولم mbooloom martabaam yi fan la jaar njàngam ci ban environnement it la yaroo ba mën a tey taxaw taxawaay bi mu taxawee ci kanamu àdduna bi yëpp cheikhul islam alhaaji ibrahim Niass xam nga ne doomi maam alhaaji Abdoulaye la baayam kenn du ko ngir wax na ne ana khalifatu tijani sami wa innani jubtu lahu almawami man alhaaji Abdoulaye Niass maay xalifa Cheikh Ahmed Tidiane bu koyo bi te daggal naa Cheikh Tidiane ay manding maam alaaji abdullah eh, dégg nga bàyyi mu ngi waxal boppam ci benn qasidaam ci tagg yonent bi mu ne wa xubbii saabitun wa xubbii saxiixun saabitun mutawaatirun qafawtu abi xaazaahu wa huwa kabiru mu ne sama Cheikh Ibrahim Niass moo wax loolu mu ne xafawtu abi qaasaahu wa huwa mm-hmm. kabiru maanaam sama mbëggeel ci yonentu yàlla muhammad mm-hmm. saxiixun mm-hmm. lu wér la saabitun lu sax la mutawaatirun lu siiw la ñépp a ko xam ñépp a xam nañ ne man alaaji Ibrahim Niass bëgg naa yonentu yàlla muhammad mu ne waaye nag loolu noonu ma mel yëpp xafawtu abi damaa roy sama baay alaaji Abdoulaye waaw loolu day da koy xamle moom moom day xamle way juróom way juróom bi ni mu toll ndax maam alaaji Abdoulaye dafa bëggoon yonentu bi ba këram daaba daaba yi yonent bi amoon fasam yi mm. da leen daan tudde fasam yi mm. ndab yi mm. ngànnaayam yi comme ngànnaay yi yonent bi amoon këram noonu la doon tudde doomam yëpp mu tudde leen bi ak ak xulafaa om kon ci bii a boobu la juddu maam alaaji abdullah mooy woy juram maam alaaji abdullah buñ demee ci askanam sa sëtu uqbata bnu naafi alfihri la muy mbokkum réew mi yëpp ci boor boobu dana bokk ak maam cheikh omarul fouti bokk ak maam Cheikh Sidil Hadj Malick mhm. bokk ak Cheikh Ahmadou Bamba mhm. bokk ak ñun mbayeen yi tafsir Maba Jaxu mhm. bokk sant Sall alaaji Abbas Sall ñoom bokk ak eh, cheikh eh, maam eh, cheikh Sidil Muxtaar ñoom ñëpp waa kër Uqbatam nu naafi'a lañ nga gis ne kon ci wàllu baayam mbokkum ñëpp la bu dee ci wàllu itam yaayam maam man maamu Cheikh Ibrahima man ci silsilaam ñoo jógee Jolof ñëw Saalum Cheikh Abdoulahi wala lu ko du du du Cheikh Abdallah hmm. bàyyi Cheikh Abdallah Tafsir Mouhamed ñas hmm, mi nga xam ne mooy wéyjur maam alaaji Abdallah moo jógee Jolof dëkk bu ñuy wax Béeli hmm. ñëw wuy si jihaadu Tafsir ba Jaxu bi mu doon def ci isne Cheikh Omar fan ci bi ñu ñëwee ñu ngi wàccoon rek ci waalo googu dëkk bu ñuy wax ñeseen waalo moo doon mooy seen génn dafa am solo waaw di ay ndaw waaw dañ leen koy jàng foofu foofu lañ jógee Mm-hmm. bañ jógee Jolof ñëw foofu Saalum mm-hmm. nekk ci boor yi fu ñuy wax eh, ñeseen waalo mm-hmm. dëkk yooyu soriwul ñooro diggante Poroxaan Tayba ñeseen dëkk yooyu yëpp ay sëriñ lañ yoo xam ne dañoo ñëwoon wuy si almaami maba ci daawaam boobu nga xam ne da doon jihaad ceddo yi nag comme maba sonal na leen mënuñu koo jekku ñuy def bu guddi jotee ñu dem ca daara ya ca jolof boobu mm. jolof mm. mooy markazu islaam ndax mm. jolof li ko séq mooy fuuta mm-hmm. ak waalo mm-hmm. te xam nga ne diine ji mu ngi ñu bàyyi ko fuuta mm-hmm. ak waalo ndax waalo moo frontière ak Mauritanie fuuta mooy haalpulaar yi fii la lislaam bi amee woon doole ak sëriñ daara yi léegi nag ñu ndar képp jolof moo tax jolof moo doonoon xolu diine ji ci jamono boobu sëriñ su baax si nga gis ni yëpp daanaka seen cosaan jolof la Mbàkke muy si mhm. mu di ñas mhm. dégg nga ñoom ñëpp jolof lañ mhm. ah yàlla dogal nag euh, bi ñuy def di taal daara yi <coughs> bu guddee rek dañuy ñëw ci kër gi taal daara ji bu sëriñ daara bi génnee buñ ko jekkoo rey ko buñ ko mënta rey yàqal ko cala nag ma ba ne comme noonu la manuma leen a aar foofu dañoo sore na ngeen gàddaay ngeen ñëw jege ma bu ko defee tuubeen yi ngeen jàngal leen lislaam bi ngeen orienter da'wa bi mhm. ñun itam ak jambar yi ñu continuer di xex di yaatal da'wa ma sha allah ci la mam Mor ant Sali mhm. de nga ma tafsir mohammed Nias mhm. mam Amadou euh, pende Bouya ak euh, mam Ibrahima Kellel cham ak mbolo yu beure beuri yo xamne ken manu mënu lim di ay serigne dara ci lañ gàddaaye bori jolof dal di ñew salum nek ak euh, almami Maba gàddaay gi gën na yaatu jolof ndax ñun suñu maam Boubacar Pendéeri bi ñu lakk daara yi pir mi ngi ko fekk foofa dëgg la ci gàddaay googu dëgg la dëgg la wax jaatu na maam xaadima jaxate kala demoon na dëgg la ba ci latjoor demoon na latjoor demoon na waaw bu wax la ne yaatu gën a yaatu saadiqun fi diaa dini latjooru am annama hamuhu fi ka kajjoor waaw ma ngoog wa ala kulli eh, eh, ñu ngi waaj ñu delluwaat ci Cheikh Ibrahima ndax sëriñ bi ñu jàkkaar lool borom taarix la dëgg la te buñ ko bàyyee dana tas tuuti te dana bëgg campéwaat ko Cheikh Ibrahima wax nga ñu way juróom dëgg la baarakallahu fiikum wa jazakumullah xeyran way juram bu jigéen looñ ci mën a wax cheikh al islam yay yaayam mu ngi tudd maam aïchatu jànqa moom aïchatu bintu ibrahim mooy yaayam mhm. aïchatu bintu ibrahim moomu mu ngi bokk ci xeetu jaaxanke yu siiw yi ngay dégg sëriñi mhm. jaaxanke yi mhm. nga xam ne xam nañ leen ci xam-xam ak wilaayatu ci biir askan woowu ci la wajuram bu jigéen bokk boo toppee ay maamam ci wàllu yaayam seen askan day dellu ba ci sayduna usman ibnu affan loolu mooy nasabam ci wàllu yaayam ak nasabam lu ñu xam ci sulukiyaat moom Cheikh Ibrahim sulukiyaatu way juram bu jigéen uh-huh. ah, maam maam Aïchatu Jànqa uh-huh. bokkoon na ci jigéen ñi nga xam ne uh-huh. taarix uh, du dañ mukk di leen di leen fàttaliku ngir ne moom yàlla dafa defoon bi muy nekk ci kër maam alxaaji Abdallahi uh, daanaka dafa xawoon a wéet ba mm. ay càmmiñam jegewuñ ko woon ak ay mbokkam mm, waaye eh, ci góor góorloom mm-hmm. ak bëgg ngërëmam mm-hmm. taxoon na ba mm-hmm. melutoon ni jigéen ñi ndax nekk soxna sëriñ yombul yàlla dana la may teraanga dana am taalibe yu lay jox hadiya ci suuf dana am ñoo xam ne danañ la dimbale ci suuf sëriñ bi itam yàlla bàyyiwu ko dina lay defal am jigéen ñoo xam ne bu fekkente ne am nañ teraanga bu mel noonu mm-hmm. dañ koy jënde ay gànjar jënde ko ay colak yooyu mm-hmm. moom nag lépp lu mës a am mm-hmm. daf koy dem am kum ko dénk koo xamante ni ab jula la woon lii boo një bu jaree njëgu ginaar mu jënd ko ganaar lii bu jaree njëgu gàtt mu jënd ko gàtt léeg-léeg bu demul ba mën a am loolu mu jënd soow soowu mbaanik comme maam Alaaji Abdoulaye Niass daf ko bëggoon bu ko defee bés bu ayam jotee mu seet lan la sëriñ bi gën a bëgg mm. mu daal di ko koy toggal mm, loolu bokkoon na ci liñ ko ràññeetle ci sàkku ngërëm boo gisee laaj bi jëm foofu waaw eh, émission bi yar a ko tax a jóg dëgg la ay jigéen ak ñuy déglu dëgg la ñu ànd ak i sëriñ mm-hmm. ñu bëgg leen a wax nu ñuy wute barke <laughs> dëgg la bu wér ñu ànd ak nitug yàlla ak ànd ak nitug yàlla wut barke li muy jural nit mm-hmm. maanaam am doom ju baax ju ñëpp xam macha allah ju ñëpp bëgg ju ñëpp sopp Euh, jàllal ci histoire bi ndax temps bi temps bi moo xat waaye yooyu yëpp mm-hmm. lii nii yëpp daanaka mm-hmm. jotaay la xam na xam nañu loolu xam nañu ci maam asu jànq ci mbaax mm-hmm. ak ci ay kamaalaat ak ndax rek doy na ko dema dema dem ba bi yàlla feeñalee doomam Mawlaana Cheikh Ibrahim ci may gi mu ko may mu njureel gi mu ko jur sax taxut mu dal di koy mu dal di rëy waaye dafa ñëwaat am na bés ñëw na sax fekk baay mu ngi mu ngi toog ñuy bë ñuy bës tànk yi sax mm-hmm. Mm-hmm. moom soxna si pour la matam mm-hmm. mu daal di jël ta loxom bu tedd bi di di bës ci doom yi te tànki Maulana Cheikh Ibrahim bàyyi ne ko déedéet teggil sa sa loxo yow sama yaay nga mu ne ko Ibrahima yow ku la jurit teewut yow yaa ko jur man maa la jur waaye yaa ma mag mhm. xam naa li yàlla def ci yow mhm. barke boobu bëgguma kenn ëppale wu ma ci ëppale ma ci loolu loolu loolu tam dafay loolu tam dafay tuuranke la dafay wane waale dafay wane waale la ci dafay wane waale mustawa bi soxna si newoon <laughs> mooy dëgg la lay wane waale am mustawa Cheikh Ibrahima Niass moom waxuñu ko waaye moom day wane waale day wane mustawaam biñ mm. demee itam ba fayda bi tàkk ba nit ñi di tarbiyewu mm. dafa ñëw ci sëriñ bi ne ko man man tam dama bëgg a tarbiyew xam yàlla bokk ci aarifina billahi bokk ci aarifaat yi dégg nga mu boole kook taalibe maam Ibrahima Fall bu kuusi mu daal di koy sóob jaarale ko fi ñuy jaarale taalibe yi ba mu xam lépp li taalibe yi di xam mu naan ci faydu Cheikh na Ahmad Tijaani loolu dafay wone ne Seyda maam Aïcha mii daal ma Aïcha bintu Ibrahim ku mat sëkk la koo xam ne moom moo war a mën a nekk wayjuru cheikh al islam mm-hmm. alhaaj ibrahim eh, ganesik àdduna cheikh ibrahim léegi nag ak eh, bi bi mu yarook njàng mu ngi gane alxames mm-hmm. gannaaw eh, maanaa julli tàkkusaan bésu alxames waaw ba cheikh ibrahim mm-hmm. mu ngi gane àdduna bésu bésu bésu alxames gannaaw tàkku tàkkusaan fukki fan ak juróom ci weeru rajab muy 1318 ci gàddaay gi loolu boo ko xoolee dafay jàpp ñaari turu yàlla dix-huit xayu la euh, treize ahad la mu mel ni xayu ahad moom ñaari ñaari tur yooyu mbóot ma nekk ca biir mu wane ne kii dana dana dana tasaarem li ñuy tuddee al ahadiya muy kennuk yàlla gi waaye itam xay aji dund la mbóotam mbóot mu dund la moo xam ne du dee ba pencum yàlla yooyu ay ishaaraat a ngi ci at mi mu ganee àdduna mu ngi tolloog aaya alquran bi yàlla di wax ci alquran inna ilallahi raagibuun inna naka ñun raaxibuuna waaye xemmem lañu. Mm. ilallahi jëm ci yàlla dong ci yàlla yàlla rek la ñu xemmem. Mm. baat aaya boobu. Mm. ci alquran. mooy mille trois cent dix huit di date bi Mawlana Cheikh Islam. da ngay da ngay déchiffrer aaya boo ko adadee ba yegg loolu la lay. loolu loolu beneen buntu bu mu ngi noonu mu tombeek euh, ci atu tubaab mille neuf ba tey mille neuf cent gis nga ne euh, mu ngi taxawaat ci waaxid yi rek. Mm-hmm. ndax mille cent boo dindee zéro yi dix-neuf moo fay des mm-hmm. dix-neuf mooy tur yàlla bi waaxid mm-hmm. léegi ca dëkk boobu ñuy wax Tayba Ñaseen fa la ganee àdduna euh, léegi nag moom cheikh islaam mu ngi yaroo ci diggante ñaari way juram yu tedd yi muy way juram wu góor maam alaaji abdullahi mi ñu doon wax ak way juram wu jigéen maam aïchatu jànqa ak ci kanamu ay magam yu tedd yoo xam ne ñoom ñëpp ay ngënk lañ hmm. ay boroomi xam-xam lañ ay waliyu lañ hmm. ci bii a boobu la yaroo ak ci daara joo xam ne daaray àdduna la hmm. naari gànnaar yi dégg nga Sénégal fu nekk nit dafa daan jóge ñuy daje bés bu set Mm-hmm. Denga nga jam alquran ja ngay jolli mm-hmm. dars ya ngay jolli maanaam multaqa dégg nga multaqal ulama la multaqal ulama la sele bu yoni borom mm-hmm. xam-xam yi la won dégg nga bés bu set wazifa ngi jolli fofu dégg nga sikar ci aljuma muy jo xamne ne jawwun diini yun tijani ci jaww ju mel nonu ci la soso waxna ci bopam ne eh, ci yenn ci qasidam yi لم أدر موجب السياحة التي قهرني قهرني المولى بها وعلتي قد برئت قبل بلوغ الحلم وفقت في الإرف... في العرفان كل القوم من نشأت آه، آه، نشأت طاهرا ما ما قلت فخرا بل نطقت شاكرا واو alhamdulillahi nashatu tahira hmm. ma qultu fakhran bal nataqtu shakira gitu. mune dama dama dama mune dama sosu alhamdulillahi nashatu tahira hmm. ma ngi sant yalla man bay ma qultu fakhran bal nataqtu shakira hmm. mune ma ngi sant yalla man ala ibrahima nyas dama sosu rek nek ku lab mana tilim tilim yi nga xamne day gar dom adama yalla dimbalena ma jaruma ci o ma jikko ju ñaaw o ma melokaan wu ñaaw mm. xawma lu doyadi xawma lu sew jaarul ci ndaw jaarul ci ndaw loolu mu ne nag loolu waxu ko mm. pour puukare wu mais da ko mm. wax ngir sante ko yàlla mu ne lu jëkk muy gént di jot di di major di am dix-huit ans la kowe góor yàlla yi ci xam yàlla am na seneen fu waqad tamma fatxi inda mahdi waqad anat jamiu rijalil gaybi taxta qadaa'i wax yu rëy la mu ne man Cheikh Ibrahim bi ma amee bi ma nekk ci berceau la sama fatxu mat motax mu amna na fu mu waxee ne cheikh na ahmad tijaani fi ne dufiatu dufatan wahidatan ila alxadrati alilahiyati munzu ana yaafiun mune cheikh bu waxutoon li do mat seri ndax bu dé sa taalibe dafa judduwaale fathu serigne bi yooyu boo judduwaalewul fatxu taalibe bi raw la mu ne waaye comme cheikh waxna li matna ma seri kon cheikh ibrahim euh ci nash am euh, ñu ñu daaw tuuti. waaw ñu ngi bëgg a yàgg foofu ndax. kii mu ngoog njàng mi hmm. borom xam-xam bu àdduna bi yëpp xam. Mhm. njàngam nu mu tëddee maanaam funuun funuun al funuun. Ibrahim moom mbooleem fànni xam yëpp jàng na ko hmm. jàngale na ko. Hmm. ndax euh, moom weesu na. jàng ak jàngale mais da cee bind. mbooleem fànn yëpp boo ko xoolee. da cee géeju woon. Euh, baayam moo ko jàngal. loolu nag dafa bokk ci karaamay. maam Alxaaji Abdallah moo tax woykat bi daf ne. mës sa jóg kër baayam teraw ci lislaam mm-hmm. benn sëriñ mënu fee wax ne dem na daaraam mm-hmm. bu kañaan amutoon loolu moo di ak mbaax mm-hmm. bu dee nga yéem loolu doy na xar baax maanaam maam alaaji abdoulaye moo ko jàngal dem na ci jaamiatul azhar euh, ci ci ci ci makkatal mukarrama ci ajam gu njëkk 1937 bi leen buur bi dajalee bàyyi radiallahu anhu gàgganti fa boroom xam-xam yëpp ndax boroom xam-xam yu bëri. te boobu 37 ans la am 37 ans la am. Mm-hmm. borom xam-xam yu bëri dañuy ragal bu ñu gisee buur mbaa ñu gis borom alal. Mm-hmm. dootuñu xoolati martaba bi leen yàlla jox mais tama. Mm-hmm. pour pour. am dara am dara ji bëgg am dara ji. day tax ba ñu tuur seen seen seen ndoxum jë. ku jóg rek ñaanal buur bi gërëm buur bi wax rek wax ci buur bi. Euh, moom nag Cheikh Ibrahim boobu Malik. Euh, euh, Malik Fahd Asadu Asadul kii. kii la Fahd la faisal faisal faisal Faysal Faysal la ci faisal dégg nga Malik faisal la. mu ngay naan waqat saqaanil Faysalul amiru. kaasa sharaabi wa huwa bii masruuru. laakinnama cheikh Tijaani xadara. maci wa maa araada basi durara. faisal la Malik faisal léegi nag biñ dajee Cheikh Ibrahim ne maa ngi sant yàlla. mi ñu bind may ñu xéewal. bañ mën a ñëw fii di julli ci yonentu yàlla muhammad mi nga xam ne moom la yàlla yónni ci diine lislaam ji tax ñu bàyyi sunu réew dagg ay mànding ñëw ngir aj néeg bi ak ziyaara si raw doom bi mm. kon bu ma tuddee yàlla faw ma tudd ko moo mm. fa jógee nag maa ngi gërëm buur bi te di ko ñaanal yàlla ci daje gim dajale borom xam-xami lislaam yi pour ñu nafar seen diine mm. waaye maa ngi koy fàttali nag li yonentu wax ci hadis ne képp ku méngoo mbirum jullit ñi mhm. ba pare nga diis ci seen kaw mhm. ku yàlla fal nga nekk buur bu mhm. buuru jullit ñi yërëmoo leen lu dul nga leen di fitnaal yal na la yàlla fitnaal allahumma walli allahumma man waliya amran min umuuril muslimina fa shaqa alayhim fashquq alayhi mu ne mu taxaw foofu mu ne nag maa ngi fàttali buur taxawal taxawal foofu ndax yaa ngi ñuy wax ni Baye mi ngi wax kalimatu xaqin. dëgg la inda sultaanin jaayir inda sultaanin jaayir benn. <laughs> yaa ngi ñuy wax itam ni Baye amul woon complexe. mokku ci àdduna ci dëgg. waaw ndax xam nga xam nga dafa am loo bi foo xam ne dañ koy duñ yi bind yoo xam dañ ko soxla. ko romb rek dem tey ñun suñu réew mi. Mhm. suñu arabisant yi. Mhm. suñu jàngkat yi. Mhm. dañoo am complexe. ñu ëpp ci ñoom boog ña ko war a wax. dëgg la tey mi ngi won ni boroom xam-xam benn cër bi soo ko amee. la koy firndeel mooy ñàkk goo ñàkk complexe ci buur bu toll ni buur màkka dëgg la waaye tam mi ngi ñuy won ni mi ngi ñuy won ni e, ñàkk complexe googu mooy buntam ci al aalamul islaami wal arabi dëgg la dëgg la du du ay pexe du man affaire déedéet du làkkantu arab mhm. du jaay gaa ñi nàngam ak nàngam ah. mais indi indaale sa li nga doon ak ki nga doon ak li nga yor loolu lu am solo la sëñ bi lu am solo la lu am solo la xam nga xam nga léeg-léeg booy waxtaanee ku mel ni Baye dañuy xool karaama gi xool martaba bi ba rëy ba duñ ko mën a roy. dëgg la il ñu wàcce ko. ah kay ñun il faut ñu dégg ni. duruus yii la lii lii la ñu man a mën di jël duruus yi maanaa. dañu war a jël ci ñoom ay benn ay ay lamaxaat. nga seen i mawaqif. baarakallah yoo xam ne loolu. Mhm. Mhm. dinañ ci mën a ja dinañ mën a dimbale moom dafa def yu mel noonu yu bëri. xam nga xam nga loolu ngay wax. Mhm. Eh, dafa am benn borom xam-xam. dolli dolli imaamul Ghazali wala dolli ñu ci loolu. waaw dafa mel ni li mu waxoon ne walaw anna ahlal ilmi صانوه صانهم ولو عزموه في النفوس لعزم ولكن أهانوه فهانوا فهانو ودنسوا فهانو ودنسو محياه بالأطماع حتى تجهما والله دينجا. الله أكبر عالي عالي دينجا. معنا بروم خم خم يبون يالون خم خم خم خم دنا لين يونغال buñ màggaloon xam-xam ci nit ñi kon xam-xam dana leen màggal waaye ñoom dañoo doya dal xam-xam mais ñu doya di xam-xam nag doya diwut mooy natija bi dégg nga وعلى كل حال آه، مولانا شيخ ابراهيم نانا بينو خيي نك مو واخك آه، ائمه يي نيكون فوفو تي موم مو نوا فوري سينيغال جي حديث بيم واخ بي دي تيرنا ما نيلو ناخ وي حديث بي ويرنا يننت بي موكو واخ ولا ديت ني نكو ويرنا موغي تي صحيح مسلم مو نوا يين مسوما كو ديغ تي يين xam nga jam na leen mm-hmm. dégg nga mm-hmm. mu ne mosut mosut a dégg xadis bi mu ngi ko jëkk a dégg ci mm-hmm. ñu foore Sénégal boobu foofu nag baytu xasid bi mais mooy benn boroom xam-xam daal di koy xool ne ko waa yow naka nga mën a jànge lazhar bu dëkk keer ne ko naka nga mën a jànge lazhar ba toll nii nga toll te xawma la bàyyi ne ko man mosumaa jàng lazhar xawma sax fu lazhar fii ndax booba mosuta def lazhar te jàpp nañ ne ku am jàpp boobu ku am xam-xam bu toll nii yaa ngi jànge azhar ci keer mu ne ñu mu ne ko foo jànge mu ne ko man maa ngi jàng ci sama baay mu ne ko kooku ci kum jànge mu ne ko kooku mu ngi jànge ci baayam mm-hmm. mu ne kooku kum jànge mu ne kooku it mu ngi jànge ci baayam mm-hmm. moom baayam baayam a ko jàngal maamam baayam a ko jàngal mm-hmm. loolu mooy maanaa wàllu njàngam ci ci wàllu xam-xam muy dellu siwaat li doon wax waaw dëgg la ci qiimatul madrasa sénégaliyya dëgg la dëgg la macha allah ndax ñooñu ñëpp fii lañ nekk fii lañ ko waajale mu génn nekk ab làmp ci ci fi ñu yaakaaroon ni ñëfay dem ñëpp dañuy sëgg dañuy taataan dañuy jël mu dem fa di niitale dëgg di jàngale kon loolu dafay tekkiwaat ñu mm. madrasa Sénégal yi ay jamono toll woon na foo xam ni su demee ba nërmeelu ci ñun ñi la suñu génération ñoo ko nërmeel waaye al madrasa Sénégal yi génn na ku ne macha allah ah. ku mel ni Cheikh Omar ku ko génne. waaw génne na ko ne génne na ne kon macha allah. xam naa dañuy fàttali rek mbokk yi fa tabaarakallahu ne leen yéen ngi ci émission jataayu mag ñi jataayu mag ñi nag tey Cheikh Aboubacar Ba At-Tijaani fi teewal. di waxtaanee Cheikh al Islam al Ibrahima Niass xam naa géej mooy waxtaan ci géej moo tax rek. Euh, bu dul woon sa retard bi. Hmm. Euh, lu bari danañ ko mën a doxal. waaye dañuy dañal rek daal di dem. comme li ñu jox te jox ci jaar jaaru sëriñ bi fa tabaarakallaahu doy na sëkk. Euh, Cheikh Ibrahim ñas ndax mën nañ xam xasaa is maanaam jagle nit ku nekk am na ay may yoo xam ne mën nañ wax ne sa jagle bopp la loo ñuy jukkil lenn ci ay jagle góor gi. wallahi Cheikh al Islam. Hmm. moom boo boo bëggee wax ci moom dangay ngay taxaw rek gëlëm. wallaahi. jagleem bëri na lool waaye. moom ci boppam xam nga ne baayam ci tariqa tijaan la ko fekk wax na ne sax daanaka xawma yaakaaruma woon ne sax beneen tariqa am na bu dul tijaan mu ne ndax juddu gi ma juddu ci sama roon keppaari baay waxul lu dul seexu tijaan ak yoonam mu ne tey tariqa bi daanaka benn këyit binduñ ko ci te sama baay dajalewu ko te këyit bu sama baay dajale rek gis naa ko loolu am na fu mu ko wax tariqa boobu nag ci la jagleem di feeñi ndax moom Cheikh Ibrahim radiallahu anhu li ñuy wax ijaaza ci tariqa tijaan bu ci nit amee benn mooy nekk na muqaddam mbaa xalifa léegi war a nekk nag sëriñ buy liggéey ci yoon wi di maye wird mën a dajale mbooloo mm-hmm. moom dajale na ci juróom fukki lijaaza juróom fukk waaw fukk juróom fukki lijaasa baayam mbër la woon mais fukki lijaasa ak benn la am mm-hmm. moom mu am juróom moom am na cinquante ijaasa mais biir cinquante ijaasa yooyu itam mm-hmm. da ci tànnoon ñett mm-hmm. kum daan may lijaasa mbaa wird si asaanit yooyu lay joxe maanaam quarante quarante sept yëpp du ko joxe du ko joxe mais trois yi lay résumé trois trois yi lay jël ay ay ay sanadam benn bi mooy bi mu jëlee ci baayam maam alaaji ci fukki sëriñam yeeg benn bi ci des mooy bi mu jëlee ci Seydi Abdullah waladul Xaaj al Alawi nga xam ne ñooñu ñooy aslu tariqa bi ca gànnaar Abdullah waladul Xaaj jële ci Seydi Ahmad ibnu Bëddi kooku jële ci baayam Bëddi ibnu Sidina kooku jële ci Mawlana Cheikh Mouhamadul Xaafis al Alawi Ashinqiti kooku jële ci Mawlana Cheikh Sidi Ahmed Tijani radiyallahu anhu nga xam ne kooku moo njëkk a indi tariqa Tijaan ci réewu Mauritanie. Cheikh Mouhamadul Haafas bobu sanad bobu sanad bu yeme la. ci Maulana Cheikh Ibrahim. mom Abdullah Waladul Haj mom la def muy cheikh tarqiyam. ci walu tasawuf mom waxna ci ruhul adab ano ci kaashiful ilbas bi muy indi ija dem yi mune ne wa haza sayyid intafa'tu minhu uluman denga wa asraran la tuktabu fil awraq wa la tunzaru bi nuril ahdaq Mm. wa huwa muctamadi fi baabil azwaaq mm. loolu mooy lan ci wolof mu ne sang bii jëriñu naa ci moom mm. ay xam-xam ak i mbóot yoo xam ne kenn du ko bind ci këyit mm-hmm. te leeru bët mënut xool ba gis ko mm-hmm. mu ne bëtub kanam bëtub kanam bii rek mënu koo mm-hmm. gis mu ne mooy sama sukkandikukaay ci buntu mos-mos maay wàllu xam-xamu xaqiiqa moo ciy sama sukkandikukaay ndax gis nga mbir yi Sénégal li fi bëgg a xew taarix yépp sax dañ ko bëgg a soppi léegi képp koo ci wax ci maamam wala ci baayam mm. ne jaar na ci diw wala diw jàngal na ko mm. sax nit ñi dañuy mer mm. sët ya mer mais loolu ta ñàkk yonentu yàlla muhammad moo fi gën ah, mais yàlla dana ko wattabi millata abika ibrahim xam nga lu ko waral waaw xam nga lu ko waral comme sëriñ yi dañuy joxe droit d'auteur waaw mu ngo te dañoo bañ a joxe ñoom droit d'auteur <laughs> dañu defe ne boo diw jàngal na diw léegi ñu ni diw daa war a dem kon ay ay ay njaboot gi nekk taalibe di gis nga loolu du loolu sharaf la. feebar la. sharaf maanaam tey bu ñuy taarixal nitu yàlla yi. Mhm. boo demee ci téere yi taarixal borom xam-xam yëpp kusratu shuyuux dañ koy tuddee min sharaf. tiitar la ah naan diw. Mm. kat dajale na ay sëriñ. jàng na ci diw. jàng ci diw jàng ci diw kon amna li am kasratu shuyuux ak kasratul asma ñaar yooyu yep te dullu ala sharafil musamma sharaf la sharaf la bu ko defé sidi abdullah waladul haj momu diggam ak bàyyi lu xóot la lo xamne bu fekkoon ne temps bi yatuna na danañ ci wax lu bëri te yaa ci jagle te waaw te maa ngi ci jagle yi te mom sedel nako ci jagle yooyu yu reey sedel nako ci jagle yu reey ndax dem na ba ne ko ma tariqa bi te mom moy serignam moom moo Abdoulaye wala dul xaaj ci boppam eeslu na ci baay mm-hmm. te bi muy naan na ko eesalal boobu maam alaaji Abdoulaye a ngi dund te booba dafa am lu ñu waxtaane mu ne ko sa doom ji moo yore mbootum Cheikh na Ahmada Tidiane mi mm-hmm. ci la ñuy ci la ñuy ci la ñuy werante ñoom ñaar ci waxtaanu weraat werantee teraanga mm-hmm. ba mu ñëwee la ne ko la ne ko bàyyil man ma won la ba mu ñëwee mu ne ko dama bëgg nga eesalal ma tariqa bi bàyyi ne ko ñaari mbir danaa la ko wax bala ma lay eesalal yow doo dellu màkk te it bala ma lay eesalal tariqa tijaan da ngay da may garantil ne da nga gàddu mbooleem bàkkaari xeetu yonentu yàlla muhammad abdoulaye abdoulhaaj jooy mu ne alaaji abdoulaye lu ma la waxoon tontu na ma ñaari tontu yoo xam ne laaju ma ko baat bii maa ko daan wax ca gànnaar man ma daan def bu sama yaram tàngee ma ne bu ma wóoroon ne bu may dee ci tariqa tidiane lay dee danaa ñemee gàddu mbooleem bàkkaari xeetu yonentu yàlla muhammad mu ne te te moom mii fekkewul ba ma ko doon wax waaye tontu na wax jooja mu ne léegi léegi fas ci sama xol mooy ndax man bala may dee dinaa delluwaat màkk wala déet tontu na ma nee na ma dinaa faatu te du ma dellu màkk kon li ma la doon wax ci xale bi dëgg la moom mooy borom may may gi kon loolu day tegtale ne may googu moo tax naar ba ne min abdayni lillahi darruhu wa darruhuma wa darruhuma lillahi allan wa man hala maanaa ñaari abdu yi ñoo ko duyal ba mu fees mhm. muy abdoulaye ñas baayam mhm. ak abdoulaye waladul xaaj mhm. dégg nga te dallaa min abdayni lillahi darruhu wa darruhuma lillahi allan wa man hala dégg nga dégg nga ala kullin euh, sëriñu ñetteel bi nag mooy sayidi ahmad sukayrij mi mu siiw mi te Sidi Sukayrij radiallahu taala anhu moom mu ngi lijaasaal bàyyi mille cent cinquante huit hijriya te yàlla dogal na Sidi Ahmed Sukay ñu ngi njëkk a daje benn guddi dong dong lañ daje mu nekk bésu talaata di bësu tamxarit mille trois cent cinquante mu tolloog mille neuf cent mooy ci ci sottaat mu fanaan ak moom hmm. ci këram ca sattaat moom sukkeeri hmm. mu daal di lijaazaal Mawlaana Cheikh Ibrahim hmm. euh, ba mu ko lijaazaalee après ba mu dajalaatee téeréem boobu ñu wax xadamu rusuux fii maa lu al fii maa li mu ëllifihi min ashiyuux téere bu rëy la ay sëriñam rek lafa dajale moom sukkeeri ba mu ko jëlee dane sama ijaazaat yi yëpp ki ma ci njëkk ijaazaal mooy sama doomi ruuxu muy alhaaji Ibrahima Niass mu daal di ko koy yónnee ba pare nag وحكونا أنت الشيخ الحي في هذه الطريقة من أخذ عنك فكأنما أخذ عن الشيخ التجاني ومن أخذ عن الشيخ التجاني فكأنما أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت خليفة عني وعن جميع الخلفاء بل وعن الشيخ رضي الله عنه سيد أحمد سكيري لولا وحق باي منكو yow yaay sëriñ bu dund bi ci tariqa bi mm-hmm. xam nga ache as sohbatu laa takunu illa li xayin mm-hmm. naajum démb kon ndax daa am sëriñ bu dee <laughs> waaw sëriñ bu dee loolu mooy mm-hmm. dafa loolu masala suufiya la lan mooy sëriñ bu dund sëriñ bu dund bi mooy ne nit pour mu jëriñu ci wàllu yàlla am ñi bokkal jamono di dund ak ñoom teñ am cër ci yàlla ñoo ñu lay àndal ñooñu ñoo koy mën a jëriñ ci xadra yàlla bi mais ñi nga xam ne amoon nañ cër ci yàlla te nekk bërzax ñooñu da nga leen di bëgg roy leen. Mm-hmm. waaye nag pour aju. Mm-hmm. boo ajoo ci ñoom kese kese bàyyi fi ñuy dund doo dem. maanaam appareil bu pan daal appareil bu buy maas daal. noo non non misaal ma sax gën naa leer. Mm-hmm. mooy naaju démb. du wowal póotum tey. naaju tey rek mooy wowal. naaju tey mooy wowal póotum tey. loolu mooy a cheikhul xay yi mu ne nag bàyyi yow yaay sëriñ bu dund bi ci jamono ji. tey itam ku jël ci yow. Mhm. dafa mel ni ci Cheikh Tidiane la jël koo jox yoon wi. Mhm. mu jàpp ci yow dafa mel ni Cheikhu Tidiane a ko jox mubasharatan mhm. ne it ku jàpp ci Cheikh Tidiane dafa mel ni ku jàpp ci yonent yàlla Muhammad ne ko nag yaay sama xalifa man Sukayrij waaye yaay xalifa mboolem xulafaa yi. waaye déedéet sax yow yaay xalifab Cheikh. Sukayrij ja ñetti silsila yooyu. macha allah mooy silsilay bàyyi ci tariqa bi. defe naa ni Cheikh Ibrahima Niass. am nañu portrait خليفة tijaniyan effectivement am nañu portrait am ci cheikhan arifan billah am nañu portrait maa laa yuusaf léegi war nañ dem ci ay alaaqaatam effectivement ñu ñu xaw ndax nit ñi xam ba mu amee duy yu rëy yooyu ak may yu rëy yooyu ñim doon dundandoo naka la ko naka la ko jëfandikoo ci réew mi ak bitim réew mi wax nga ma lu am solo lu jara lu jara Mawlaana Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Niass benn nit la bu wax na ñaari baat yoo xam ne kalimaat zahabiya kalimatayni mm. mm. zahabiyatayni mm-hmm. benn bi doomu aadama yépp la ci jublu mm-hmm. bi ci des jullit ñi la ci jublu mm-hmm. daf ne bët bi may xool nit kenn du ko xool nit di ko bañ man bépp jëmm ju ma gis rek maa ngi gis ci moom ne nataalam bi mooy turu sang bu tedd bi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam miim xaa daal bu boobaa nag jikkoom ak pas-pasam mm. mooy tax ñuy juboo mbaa ñu ñàkk a juboo mm-hmm. waaye jëmm ji moom duma ko bañ mukk mm-hmm. ngir mu ngi may fàttali yonentu yàlla kon kaana yaxmilu almahabba li kulli xalq li kulli mm-hmm. loolu daana ko wax ku amoon ku làmboo woon cofeel la ci mboole mbindeef yàlla yi da daana wax ne it du ma yëg ne ab tiijaan la lu dul jamono bu ma yoree sama kurus di laazim mbaa ma yore hmm. ma toog ci géeyu wasifa mbaa ma toog ci géeyu maanaam bu nekkee ca teen ba di root di rek lay nekk rootkat ret rootkat bu dootee ba noppi nag bu ñu bisee ca kër ga lay day nekk day nekk ku dëkk ñëpp ci kuy kuy kuy dund ak nit ñi maanaam du yëg mukk ne tijaan la hmm. lu dul jamono yi muy def hmm. lawaasimu tariqaam waaye bu paree nee na benn jullit laa ci biir jullit ñi nekk jullit boo xam ne tàllal naa sama loxo nag pour mbooleem jullit ñi ala ixtilaafi masharibihim wa madahibihim léegi ndax tàllal googu noonu mu tàllal loxoom ci jullit ñi ndax mën nañ ci am ay firnde maanaam relation bu mu amoon nag kilifa yi mu bokkaloon diine ji ci réew mi bu baax a baax xam nga Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu yow sax laa ci jublu ma ne réew mi wax naa ne dafa am feebaru diine bu ñu am te feebar boobu Cheikh Ibrahim jéemoon na koo jéem a faj. Mhm. mooy ban. moo di kuréeli lislaam yi ne ci biir réew mi te bokk diine ji. Mhm. dañoo bennalewul seen kàddu. Mhm. joxantewuñ seen ay xol. lii moo waral diine ji. dafay am doole ci biti. mais amu fi doole ci biir. ndax amuñu benn kàddu. ku nekk sa doole. sa doole la ak sa mbooloo mm-hmm. ak sa ruq booy wax mm-hmm. ña ngay waxal mooy ña nga yilif mm-hmm. ñooñ ñoo lay déglu ñeneen ña nga xam ne yilifoo leen duñ leen duñ la déglu ndax boole woo leen ci seen wax lii mooy li nga xam ne nekk na feebar boo xam ne tax na ba diine ji dëgg-dëgg nizaam organisation bi mu war a am fii ci réew mi mu des maanaam taassub tax na maanaam par par parparloo tax na ay dikk ay am am ci digënté bi ay dig yu war toon am mm, yo xamni war lu wona bu boba nak mm-hmm. dañ doon misal ne mm-hmm. ki nga xam ne bokk ben diiné mm-hmm. yéen bokk ben bay, ki nga bokkal ben sëriñ ben tariqa masalan dafa melni ni bokk ndey ak bay amna lettre bu dina ci yexi bu mu bindante woon ak sëñ hadi Touré lola na ca ak ki nga xam ne nag yéen a bokk benn sënat ci tariqa mhm. kooku ay cheikh ngeen yéen a bokk benn biir mhm. moo tax cheikh ibrahim mhm. bi nitaaqin waasea mbooleem machaayix yi woon ci senegal muy qaadiriya muy muridiya muy laaheniya nga xam ne ñii bokkul ak ñoom tariqa tijaan mais ñoo bokk tasawuf xaritoo woon na ak ñoom muy waa kër Cheikh Sidiya mhm. ca gànnaar mhm. Abdoulaye wuldu Cheikh Sidiya ñoom ak seen njaboot mhm. dañ daan ñëw ci moom waa kër Cheikh Saadu Abihi muy surafa u nga xam ne ñooy waa Nimjaat yi dañoo amoon alaaqa xaasa ak moom waa Njaasaan waa kër Cheikh Sidil Muxtaar waa kër maam bu bu nu am bu Kunta Njaasaan amoon nañu ak moom alaaqa xaasa ba xalifa bii tey jii ci Njaasaan daanaka bàyyi ko yar muy xalifa njaasaan bii tey mm-hmm. ngir alaaka bu rafet mm-hmm. bu doxoon digganteem mm-hmm. ak mag ñooñu amul ci kenn koo xam ne jógut dem ba ci yow nuy sila nemmeeku la defal la teraanga ñoom ñëpp nag macha allah noonu la continuer ci waa kër Cheikh Ahmadou Bamba la tàmbalee ci sëñ Modou Moustapha taawu Cheikh Ahmadou bàmba nga xam ne moo ko mag fuuf ci at mais noonu lañu xaritoo woon sëy Cheikh Ibrahim seeti na ko ay yoon daarul quddus ba loolu moo waral Cheikh Mouhamadul Moustapha digaloon taawam sëriñ Cheikh mbakke gaynde faatma ne sa baay bi alxaaji Ibrahima Niass yéen a bokk jamono na nga bàyyi ci moom xel te bul juuyoo ak moom loolu nekk a alaaka bu rafet boo xam ne doxoon na ci diggante sëñ Cheikh Mbacke gaynde Fatma ak Cheikh Ibrahim tudd na ko ci biir xasaayidam yi mhm. loolu continuer mhm. ci diggam ak cheikh Mouhamadul Fadil. Mm. Mbacke muy sëñ Fallou Mbacke. Mm. kooku seen alaqaat yi leer na. Mm. defe seen photo seen photo bii nii photo bii bi ma koy bi ma bi ma ciy wax ci ci bi fi sëriñ Saalix làqoo ñu dem jaale ji ko. ma di ci wax ak xalifa bi. alaaji baara daf ne moom ci boppam. moo tiire photo bi. <laughs> ndeysaan xalifa alaaji ci boppam. doomi moo tiire photo bi. muy ay alaqa tayiba noonu la meloon mm-hmm. ak mbooleem njobootu mbàkki yëpp mm-hmm. yëpp yëpp muy waa kër sëñ bàmba tudd na sëñ bàmba ci ay xasaayidam mm-hmm. tuddin yu rafet rafet yu ànd ak worma ak respect loolu ñëw na digganteem ak waa kër maam limaamu laay ba Seydina ma njoon laay mii nga xam ne doomi Seydina Isa la bi ñuy ubbi jumaa Kàmbureen jii Mawlaana Cheikh Islaam ñëw na fekke si ubbiteel jumaa ji wuy si leen nee nañu ñoom waa kër maam limaamu biir kilifay diine yi neewoon ci réew mi mennam bàyyi moo ci ñëwoon dégg nga fekke si leen seen ubbiteel jumaa boobu loolu ba tey ñu ko ko dégg nga bàyyee la xel ak fonke ko noonu loolu nag alaaka ba dafa am taalibe baay bu ñu wax Ceerno Yaxya Li mm-hmm. bu dëkkoon ca Fuuta dégg nga mm-hmm. laata muy dajeeg baay mu amoon alaaka xaasa ak waa kër maam limaamu mm-hmm. bi mu demee nag ba jëflanteeg Cheikh Ibrahim ne moom la doon wër mm-hmm. bi mu dajeek moom ci la dox digganteem ak waa kër maam limaamu ba seen diggante nekkoon diggante bu rattax kon bu dee ci wàllu alaaka alaaka ñi nga xam ne léegi fi ma ñi ma tudd nii am na beneen dimension waaw ma ma maa ngi ñëw tuuti foofu gis nga ñi ma tudd nii ñëpp waxaguma ñi bokkal tariqa Tidiane ak ñi mbokkal mm-hmm. Cheikh na Ahmad Tidiane mm-hmm. damaa njëkk ci biti mm-hmm. mais gën naa yaatu xarakatul falaax bii nga xam ne dañu tuddi leen euh, salafiya ñoom xalil maareega ak ñi nga xam ne ak euh, alaaji Mamoud Jowal ñoo mu wér ne dëgg-dëgg jubóowuñu ak yoonu Tidiane ñoom waaw waaye moom ci boppam Cheikh Ibrahim ñu koy def ci ay mille neuf cent cinquante Mom dafa dafa dafa ñëw na fekk si hôpital bi may na leen xaaliss bu bari hmm. pour ñu taxawal mahad bi hmm. bi muy dem lu reelo am na ci ñu ne ko serigne bi mag ñu ne ko serigne bi bul dem xalé yi xalé yu reew lay te dañuy diingat sëriñ si bàyyi man bokkuma ci ñi ñuy diingat hmm. mu ne ñu ne ko mu ne leen lu ñu wax mu ne ñu ne serigne si dañu yafus mu ne man kuma gis xamne jambar la man yaafuusuma mu ne lu ak lan mu ne serigne si duñ liggéey mu ne man ku gis sama tool yi ca Kossy hmm. man bay rek laay dunde hmm. mooy sama métier kon man am naa métier maa ngi bay damay jàngale di damay mbéy ak njàngale mooy sama métier hmm. ñu ne ko nee nañ ak lan mu ne dañu ne sëriñ si amuñu xam-xam bàyyi mu ne xam nga ne loolu man bokk ma ci man sama téere yi ma taalif moom ku ko gis xam ne am naa xam-xam <laughs> dëgg mu daal di ne kon danaa dem mu ànd ak oustaz Baraham Diop ñu dem loolu yëpp day wone ne moom li ko ñoroon mooy xam ko ñoroon mooy lislaam bépp mazhab boo mën a yor pare na pour jëflanteeg yow ngeen discuter ndax di ngeen trouver solution émission bi dafa neex li ngay wax dafa neex mm-hmm. boo gisee ñiy déglu émission bi sax xam nañu effectivement ni tey doguñu la wallaahi ndax lan ndax lan waaw mais nag ngeen may ma ma ñëw benn non dafa am fu ñu dafa yi dafa <laughs> da nga ñëw dafa am fu jëm waaw <laughs> euh, Sénégal Euh, dañ dañuy déglu te ñu yëg nañ ñi ñu ngi jot ñu ngi topp kii bi bu baax a baax. alhamdulilah di ko rafetlu moo tax tey sañu tëj ñu bëgg laa bàyyi. Mhm. nga nga wax bu baax. dëgg léegi da ñuy ñëwal ci diggante bàyyi ak ñi mu bokkal tariqa tijaniya. dëgg la waaye tam boo fa ñëwee ba rek ba pare. Mhm. na nga dem ci bàyyi international. incha allah ndax tam. Baye dafa am particularité internationale. dëgg la ci loolu waaw international googu tam bëgg nañ nga tudd ci. incha allah dinaa ci ñëw. Mm. Euh, bu ko defee nag. Mm. Euh, Cheikh Ibrahim loolu la séq ak ñi mbokkalul tariqa bi. Mm-hmm. muy ñu ay suuf suufiyanke ni moom. Mm-hmm. ba ci ñi nga xam ne gëmuñ te sawuf te yor yeneen xalaat doon na pare pour ñu échangeante ndax ñun diine ji dañoo war a fexe ñun jullit ñëpp. Mm-hmm. donte bokkook waa ji ay xalaat. mais amna lu ngeen bokk lu beuri te juyoowu len fa. li ngeen bokk li ngeen bokkee ëpp toujours dole lu ngeen bokul ngeen bàyyi ngay ngayo ak mm-hmm. akhiro mm-hmm. mais bim joge fofu nak bir tariqa tidiane bi. Mm-hmm. ñu njëkkee kër maam Cheikh Omarul Fouti. diga mak bayam cierno Saïdou Nourou tal ak cierno Muntaga Taha bu luga wayjuru cierno bashir alaqa tayyiba mo fa ne khassa ndax bayam maam El Abdoulaye. dafa gëmoon cheikhu Umar. Mm-hmm. silsilaam yu njëkk yi ci cheikhu Umar la jaar. Mm-hmm. waxoon nañ ne maam alaaji bu ñu tuddee sax cheikhu Umarul Fuuti mm-hmm. day jóg taxaw. ngir ngir fonk cheikhu Umar. léegi nag yooyu alaaqaat yu tedd yooyu. moo waraloon bàyyi fonk cheikhu Umar ak njabootam. ba tax na kere bi Seydi Mouhamadul Habib doomam. Euh, euh, sëti cheikh. jëlee doomam Seyda Umu Xayr. yàlla may ko ci bant. bu góor. daf ne shérif. baay bu ne yaa moom sa doom mm-hmm. waaye dama la ñaan tur mm-hmm. mu may ko ko mm-hmm. bi kilifa yi ñëwee ñoom Alxaaji Abdul Aziz ñoom sëñ Abbas Sall magi tariqa bi bi ñu dajee bàyyi ne dama doon ñaan doom ji ñu tudde ko sunu maam Cheikh Omarul Fouti ndax tariqa sama baay alaaji Abdoulaye ak sama baay alaaji Malick liñ ci daj yépp barkeb Cheikh Omar la te yàlla mayu ko mu dem Faas Mhm. yàlla mayu ko mu gisee ak njabootu cheikh mhm. kon buñ demee tey ñun ay sëtam ba mhm. suñ deret jaxasoog dereti cheikh am ci doom ju góor doom ji nañ ko tudde cheikh omar mooy chérif cheikh omar at tijani mii nga xam ne mu ngi fii ci almadi baayam di chérif mouhamadul habib ibnu seydi mahmoud ibnu seydil bachir ibnu seydi mouhamadul habib ibnu cheikh tijani yaayam di seyda umu xayr bintu cheikh al islam alaaka boobu bu rafet la ba ci diggam ak Thierno Mountaga Tall mii mm, mm. bàyyi Thierno Madani mm. am nañu enregistrement kere bi ñuy ubbi zaawiya leew nañu seen 1971 Thierno Mountaga dafa wax ba ne ko yow rek doy nga ndam ci tariqa tijaan mu ne ko ndax tey yow boo ootee woon sa tariqa bopp àdduna bi dinañ la topp waaye boo wëlbatikoo nekk taalibeb Cheikh na Ahmad Tidiane yow alaaji Ibrahima Niass lool doy na ndam ci tariqa bi man maa ngi amee cassette bi ci ci làmmiñ Thierno Mountaga sëñ Abdou Aziz Dabakh mu ngi toog جناو كر شيخ عمر كر شيخ سيد الحاج مالك اللي تامبل شيخ الخليفه سيد ابو بكر سي ابن سيد الحاج مالك مغام لاون خريتام لاون فيرنده جي موي سيرين شيخ احمد تيجان سي المكتوم اك سيد عبد العزيز سي الامين نيوم نيار دغ دغ دغ شيخ ابراهيم مو دونون سين باي نيك سين ويتال نيك سين خريت لول الامين واخنا كو نيب دغ li ko waral nag mooy soxna astu kan mhm. mi nga xam ne mhm. dafa di doomi alxaaji abdu hamid kan mhm. dëkk kawlax kaneen googu am alaaqa xaas ak maam alaaji abdallah soxna astu kan jël sëñ cheikh ibrahim jàppe ko muy càmmeñam doon joxoñ doomam yooyu di leen wan ne bàyyi seen nijaay la moom itam mu nijaayoo leen loolu alaaqa yu rafet yu jekk yu baax ñu nga fa ci loo xam ne tey jii boo ko doon lim du jeex doy na ci seydi aboubacar si radiallahu anhu baay ñëw na tiwaawoon ànd ak shérif bun omar sëñ babacar dalal ko ci biir néegam mu fanaan fa loolu boo tënkee foofu rek xam naa da nga dugg ci international bi ndax international bi mu ngoo dañoo bëggoon a am une minute tam waaw déglu dara ci kàddu bàyyi incha allah émission bi lu mu gàtt gàtt ñu déglu ko def naa saaliwu daal macha allah noonu la mel ak maulaana cheikh alhaaji abdoul aziz si dabbaax ba rakkam maam Serigne mbay ñas mm-hmm. bi mu génnee àdduna 1972. Mm-hmm. sëñ du ñëw. Mm-hmm. bi ko bàyyi ne yaa koy ji jiite ko. ba tey loolu enregistrement baa ngi fi sëriñ bi yor na enregistrement ba bi mu ne ko jiiteel. Euh, sëriñ bi daal di daal di maam Alaaji Abdu ci mbaaxam mu ne ko déedéet sama mangana bàyyi na ne ko boo ko julleewul kenn du ko jullee. ne ko it néeg bi muy waa kër Alaaji Abdoulaye Niass. xam nañ ne yow sopp nga ñu lool. waaye ñoo la gën a sopp. bind na ci moom alaaji عبد Aziz bind باي ci bàyyi ay xasaay bokk يا نخبة العلماء كهف المساكين شيخ المشايخ في الإسلام والدين سلالة القطب عبد الله وارثه خليفة الشيخ برهان البراهين لولو على جابد موكو وقت باي ما أجمل هذه القصيدة ما أجمل هذه القصيدة سرين عباس سال بلوغة نون لا ملك موم غورغي أحمد سيسي في الله جي بوساخو وجامل دينغ واتشني بشيخ إبراهيم سيك sëñ bi ñoom ñëpp macha allah yaa ñu tooñ nag da ngaa waroon a ñëw fajar. <laughs> waaw mooy tooñ de. <laughs> yaa ñu tooñ de li ngay wax am na solo waaye waxtu bi biñ ko <laughs> ah, tàmbalee. da ngeen di fexe ngeen mayaat maay beneen émission incha allah xam naa day nekk Zahra Chad ak. incha allah léegi. Uh-huh. Euh, da nga ñuy tënkal tuuti ñaari minute ci mhm. international bi ci bàyyi international ndax gis nañ ko mook mook mook mook mook mook boru kii bi Jamal Abdou Nasser mhm. Mhm. gis nañ ko mook Malick Faysal tuddal ñu tuuti ci ñaar kamtalaal ñaari minute ñu teew ñu teewlu tam déglu euh, euh, defe naa ni disponible na. waaw waaw Serigne Saliou dañuy déglu kàddu Cheikh Ibrahim. waaw door a ñëwaat ci international wala ñu déglu ko ba pare waaw mën nañ ko déglu léegi incha allah waaye dafa mel ni jàppandal na de macha allah. bu ko defee xam naa léegi rek incha allah mu ñëw ci loolu. mais entre temps balaa moo ñëw. comme li des ci waxtu yu bareetul. léegi bàyyi ci wàllu international. moom bu paree rek mu def. waaw bàyyi ci wàllu international. kooku yàlla moo ko defal loolu. daanaka moom xam nga comme nee na li Hong Kong ku min Bong Kong ko jaa xadiimukum. yuwaali laka al asfaara wa huwa atala maanaam fii ba Chine. moom dem na foofu. te alaaqaatam yëpp islaamiya la rabbaaniyaat la mm-hmm. première bi bi fayda bi tekkee damay naan toujours Baye dafa nekk ñetti Baye Niass bi tegal foofu sa baaraam ñu mm-hmm. déglu cheikh al islam alhaaj ibrahima Niass delsi ci cheikh aboubacar ba tijani fa kay fa kaana kay nekk nakiri mbugal sama ñoom alam tara ndax xamu la na laa naka yàlla an na mi ne sama yëpp di jaa maa anab taw فأخرجنا أتن جنبي جمم سمرات إتمنيت مختلفا لما يهود أروانا أعمل أتن أنا أعيب لنا يا الله وجه التوبي يوجه التوبي وجه جسوف كان شخي جن كان شخي يوي على جنة كمنيت منيت يوي رنعود يي ورد يي خونك يي سرم يي نيو ومن الجبال أجنك لجدجي يدبن أيام يدن يدي ويغير waxu mun a jëli waaye xonq de yàlla bind doj yi doj yi dem takk na ci doj weex doj yu xonq doj yu soon mu pare fu na aji la alwaan waaye melo seen de yi sax seen melo wute na waxaraa bi bu nekk na ci way kukk soodu nii way ñuul am na sax doj yoo xam ne dañoo ñuul kukk taw ki bi jiitu mu dama ko wa mina naasi mu bind ci nit ñi itam wa dawaa bi ak daaba yi wala naami ak judi kër yi muxtalifun aji wuute alwaanuhaa meloom mu bind doomu aadama yi tam nam binde yëpp yëpp doomu aadama yi itam am na ci ñuul am ci ñu weex am ci ñu xonq am ci ñu sool daa ba yi noonu judi yi noonu te taalika naka wuuteeg meññeer ak doj yi de naka doj yeeg meññeer yi wuute woon weex lii ñuul lii xonq lii sool doomu aadama yi itam noonu la def weex ak ñuul loolu rek ci dëgg loolu ci yàlla wax yàlla lu mu rek sàkk na weex ak lu ñuul waaye li yowoon yi sos naa doom yi xam tax ñu ñuul dañoo noonu dafa sàgganoon xam di ko reetaan loolu xeni neen la yowoon yee ko sos du dëgg lii dëgg mooy doomi aadama yëpp ñëpp xam nañ ne ci benn baay lañ wàcce ñu weex ak ñu ñuul ñëpp aadama leen jur te yàlla sàkk nañu weex sàkk ñu ñuul sàkk ñu xonq yépp ci melaw ci kaw rek lay am jaww yi ak gox hmm. kaddu yi ñu dégg mooy kaddu cheikh al islam alhaaji ibrahim ñas fa tabarakallahu ñu delluwaat kaddu gi it cheikh aboubacar ba atijani mu tënkal ñu cheikh ibrahim ci international tàgguwaale foofu ndax waxtu yi yegg nañu ci fi mu jeex cheikh ibrahim radiallahu anhu dama ne boo koy seet dafa am ñetti étape Mhm. dafa am Cheikh Ibrahim Niass sëriñu Senegal, mhm. Cheikh Ibrahim Niass serigne Afrique mhm. ak Cheikh Ibrahim Niass serigne aduna bi moy ñetti dima ñetti étape bi muy doora def daawa bi nek ci kosi ñenti mag wala juromi mag wër ko mam Ibra Fall suñ Mbay ñess mam Cheikh Omar Touré sëñ Ousmane denga ak serigne Ali Cissé muy turi ñenti sahaba yonentou bi mu mu naan leen nii ma leen gis nii ñu wéet ci néeg bi danañ daj àdduna hmm. mais biñ toogee tuuti rek Muritani fëx njobootu cheikh Mahamadul Haafaz al Alawi ki indi woon tariqa bi hmm. cheykhaani doomi dégg nga Mouhamad Tulba doomi cheikh Ahmadu doomi cheikh Mahamadul Haafaz ñëw nekk taalibeem hmm. Seydil Haadi wul di sëtu Seydi Mawlud Fall walbatiku ñoo nekk taalibeem léegi Muritani ñëw Gambie Nigéria Niger Togo Ghana Tchad Soudan fu nekk réewi chef d'état yi nga xam ne ñoom Jamal Abdou Nasser Maamar al Qadhafi dégg Faisal, Faysal Ni ñii ñépp dal di ñëw ñii nekkuñ ay taalibeem mais nekk nañ ay xaritam ñii nekk ay taalibeem buuru kanu àdduna bi dal di daj nga xam ne Cheikh Ibrahim Niass boo non bitim rew danaka pour nga gisati ben serigne sax buñuy tuddu buñu xam mom rek lay do kon Baye ñass yalla may nako mm-hmm. limu am dal mayug yalla la macha allah looy tàggoo li may tàggoo daal di wax ne ñun mm-hmm. nañ del ci njangalem sunu mag ñu bax jërëjëf jërëjëf jéem roy seeni jikko mm-hmm. jéem nek ben jéem a bëggante mm-hmm. jéem a fonkante mm-hmm. kenn ku nekk ñu changé discours yi nga xam ne moom la ñuy waxe léegi ñu changé langage mm-hmm. ñuy wax luy boole te moytu luy féewal jërëjëf jërëjëf Cheikh Aboubacar Ba Cheikh Tahir tey moom xam naa ne sa liñ waroon na duñ ñi ci njàngale mi dañuy bàyyi ba beneen bés <laughs> ñu daal di koy càmbar ñu ngi gërëm Serigne Saliou dem mi ñu féete woon ci wàllu xarala gi tey Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass lañ doon waxtaanee bàyyi rédaction bi mu ñëw ba subaak jàmm ci beneen jataay ci jataayu mag ñi jërë ngeen